ñun ci dëkk bi lañuy dëkk nekk ay artisans pendant trois mois am feebar bu fi gana si ñun ñëpp ñu koy xeex bu deux heures ñu wàcc ñu ñibbi su huit heures ñu te ñu dugg suñuy kër booba léegi man ñetti weer président am loo xam da ko génne di ci jàppale askan wi daanaka ñun mën nañu tuddi dañu ñoo boddi te nag ñun liggéey nañu fii liggéey boo xam ni nit ku nekk war nga ñoo bàyyi xel ndax xale bu ci dem école mokkaloo ci ñun lañ lay indi xale bu ci dem daara ba wàcc ci ñun ñii lañ lay indi ñu jël la def la nit daf ci yow xel daf ci yow xam-xam yar la ba pare nga ñibbi sa kër jariñ say mbokk kon ñun balaa kenn dimbali nit ñun ñii la war a dimbali. son excellence bi nga xam dafa génne pour maye courant bi ñun suñuy co suñuy compteur mënuñu ñoo may parce que ñun dañoo bokkul ci wàll ñun suñuy compteur dañu koy liggéey ko waaw moo tax commercial la moo tax ñun ñëpp dañu cee romb suñuy ndox it daanaka ëpp na lool ci kër yeeg lépp ñu bokk ci njaboot gi am ay njaboot war a dund war a lekk war a naan. président diggoon nañu fi li nga xamante si mooy journée de l'artisanat benn yoon la ko def bi mu toogee ak léegi defaatu ko loolu itam ñu ngi ko koy wax ni ko loolu itam lu baax ci ñun la président ñu ngi lay wax ni la sa ministre bi bu fekkee wax nga ni ko nañu jàppale war nga koo wax bu fekkee waxoo ko itam war nga koo wax te ñi ngi xaar jàppale parce que tamit ci Korité la ñu jógee ñun ñi ñëpp suñu liggéey liggéeyu Korité la Korité gi yëpp liggéeyuñu ñu jëm ci bis bu mag muy Tabaski te it ñun ay père de famille lañ te am na lu ñu ci war école bi le 25 bii ci kàttanu yàlla dafa war a ubbi am nañ ay njaboot yoo xam dañu war a jàngi tey ji ñi nga xam ñooñu war a fekk fa ñuy fekk di ñu jox sax ay masque wala dara yàlla dogal na loolu lépp amul président daal ñu ngi lay lancer appel xamal la lii nag suñu premier phase la boo xamante ni si dañ lay ñaan gouvernement bi gis nañu bu baax action yi muy def gis nañu itam ñi muy jàppale waaye nag dañ cee boolewul artisan yi ñun nag mënuñoo jubal ci moom direct xamuñoot jàppale bi muy jàppale askan wi xamuñu artisan bokk na ceeb déet waaye ñun gisuñu dara te it yaakaar naa ni ñeneen yi muy dimbali ku ci nekk am nga ci loo jàpp mbaa nga am salaire artisan amul salaire kon nag am naa yaakaar na gouvernement bi war naa waaj ba ci artisan yi jàpp leen ndax artisan yi bari nañu lu ñu ma défendre ci réew mi torop ku génne école rek artisan yi moo ñoo lay defar instrument yëpp artisan yi ñoo ko defar kon nag gouvernement bi ñu ngi lay ñaan lu baax li ngay def ci réew mi nga boole ci artisan yi ay marché day am artisan yi war cee liggéey du ñu gis dara ñu war a def ay formation artisan yi duñu gis dara duñu ñu yëg dara amul dara luy xew artisan yi yëg artisan yi sonn nañu te duñu mer duñu fay duñu gedd duñu rawandike duñu mars